am jërëjëf ñu dalal leen si seen sport bantaba bi nga xam te moo leen dee ñëwal fii si Star TV samedi bu jot ah, from 11 ba 12 30 ah, nag ñu dalal ki nga xam ah, te moo def jaloore moo def history tax Gambia qualify si Cup of Nations for the first time in the history tey ko moom lañ am mu wax ñu naka def ak lan la fiil si nga xam te ne moo nekk history bu Gambia miig te moom tur bi daf si bokk foofu tur boo xam te ne dañ binda askan bi ko recall even next generation dañu xam ne lii moo nekk team bi nga xamante ne am um, moo def uh, jaloore yi nii um, ñu dalal ko Abdoulaye nuyu naa la nga nuyuwante ak ñi nga xamante ne ñoo laa nekk di seetaan ah jërëjëf maa ngi nuyu bépp nit kuy seetaan si biti ak si biir yëpp dëkk bi comme Saalum ko waxee rek man maay Abdoulaye Sangang laa tudd waaye ñëpp ñu xamee Bambalay te mu ngi wàllu am solo daal waxtaan bi daal lu am solo la moo nekk tey incha allah I hope ñëpp nañ ok ah, jërëjëf ah, ñu bañ a sori si li nga xamante ne moo nekk ah, programme yi ñu waxtaan si li Bamba like Cup of Nations la Gambia dem te comme next year in Cameroon la war a nekk understand nga te yow bokk nga si team nga xamante ne nañu dëkk bi am um, let's su ma mënoon a recall like two years ago on last Cup of Nations how old you ak fu la fekkoon. last cup of nation moom fii la ma fekkoon dëkk bi fekk demaaguma daal maa ngi ko doon seetaan seetaan naa finaliste final bi tam waaw comme amoon naa bi la doon nekk daal naa si moom daal so tàngoo tam si bi tamit so dafa mel ne daal lu ñëpp doon uti daal ok yaa ñuy wax ne comme da nga ko doon seetaan bés fii nga fekk ah, final bi sax fii nga ko seetaanee mm. ndax yow ku la waxoon Oh, ok te yaa ngi seetaan Cup of Nations si sa biir kër Gambia fii waaye next Cup of Nations yow di nga bokk si tiim buy tax Gambia qualifier di nga ko doon gëm yow. waaw loolu moom dinaa ci am na sama mag boo xam ne Willy Boy. Hmm. suma ko la dafa ma wax loolu si camp bi. Hmm. Gambia su ñu doon Cup of rek dafa fekk Bambalaya mu fa te loolu tam nit yi wéru woon nañ ko nag si loolu tam waaw mu ngi nii tey apun na. Hmm. te maa ngi koo gërëm moom tamit bu baax a baax a baax si waxam boobu moom respect ko trop léegi really well. oh that's mean boo gisee ne this dream come true at the end of the day. Oh, <laughs> moom la ah, ah, ñu yaa ngi toog moom si crème la la Gambia dinañ qualify waaye su moo qualify yow di si bokk te yow. boobu xalaat loo ne war a tukki sax pour dem play. yeah for real ma lu ma ma woon naa tukki moom. ok mun nga ñu wax about because of Bambalay come from nowhere dañ jékki-jékki rek Bambalay est-ce que play nga youth label si nga am koy si dikk bi balaa ngay am national call out. waaw play naa play naa play naa second third division ak second division rek superstar. Hmm. play naa tamit Oxtam second division. Hmm. waaw waaw play first division like uh, under 17 under 20 uh, est benn mus ngaa si benn sélection Gambia bi. non non non probablement musuma bokk si benn sélection Gambia muy 17 bi muy 20 23 musuma bokk si benn. then mun nañu wax ne carrément Bambalaaye between uh, Tunkilaf and I rek Bambalaaye from nowhere to the national team national team nekk ki nga xamante ne um, saa yu nekk ñu invite ko how was it like buñ la invite was and then I used to say, okay, every invitation because it's in the Gambia have bunch of players. And when it's like, okay, you la, you coach, you gain in Hamden, my 50 man provision. How how were you feeling? Are you in a hope now? Yo, di nga bokk si final selection bi. waaw loolu tam moom bu bëri na player tam comme na ko waxee rek waaw player tam ñëpp a baax tam ñëpp mënu ñëw. waaw man bi ni ma doon ànd ak gars yi Portugal laa xamoon ne comme probable na am chance su dul dara naa fi loo xam ne ne wala lu leer daal ne bëggoon naa pilaal dëkk bi tamit so moo tax anytime ma bu Gambia woote rek nga xam ne naa war naa ñëw nañ ne am jaar nga ay place bi balaa nga ko nekkoon nga Israël jógee dem li nga xam mooy Bulgaria jógee Bulgaria ñëw Gambie fii ba finally nga dem li nga xam ne mooy Belgium nekk ak li nga xam ne mooy Rommel léegi finally ñu gis ne yaa ngi ak ñi nga ne ñoo nekk Beerschot am all these obstacles in the way mun nga narrate a little bit of waaw comme sant yàlla rek la moo nekk rek because wilaaya boo gis bi am na jaar-jaar tamit xam nga su ma jaar-jaar métti na waa jënuma métti ñeneen ñoom ñoom lañ fa ñoom moo gën a métti la jaar-jaar bu ngay jaar balaa gaa di nekk professionnel hmm. sant yàlla rek di rek this the tamit lu jotul rek du koy du daal. yaa ngi wax sa jaar jaar métti na because mun nga ñu moo métti sa jaar jaar ndax Bamba dafa nekk ki nga xamante ne am um, everything was okay parce que gis nañu yeneen pour am dala sa a problème so mun nga ñu expliquer da jaar jaar métti métti gàllankoor yoo amal daal balaa ngay nekka naaw Bamba lay of all what will what will say. waaw jaar moom métti na woon na moom because daal football sax pour nga am ko problème la nekka et soo demee training lekk sa problème la soo soo a yaa ngi Uganda di nga añ soo añ yaa ngi Uganda reer soo daal affaire si métti na daal reer moom bokku si reer moom doo leen am loolu reer daal so loolu moom affaire la leen nekk daal cop pour jógee train cop moom problème la xanaa ñu dem uti fanaan di cop ak <laughs> conseil loolu rek la oh then uh, that is during ten with academy ban academy nga nekkoon wel balaa uh, pour doon balaa ngay jàppante li nga xam te mooy first ak second division waaw waaw académie play naa fo na play naa académie Arafil bi mm-hmm. ñëw naa académie Paki Jola bi to mu tax suma coach la jóge foofu dem state si Yankob après jóge foofu si laa ñëw Superstar Academy ok started making breakthrough from Superstar Academy ah, ok jóge nga li xam te mooy Superstar dem li xam te mooy a Lomel Lomel nga dem right now Berscott léegi lan lañ nekk di séntu si nga xam ne mooy Bambalay parce que um, the future is bright one could say lan la ñu expect from Bambalay. waaw li expect moom mooy ñu expect si biir player yi ñu nekk a dégg seen tur yëpp right now si wolof football. waaye mm-hmm. comme suma logo bi daal di go in never stop la. waaw di go in never stop boo dee xam nga wala xam ne yéeme na trop. Ah, jënda daali football was it so a very difficult moment for you even sometimes su jógee training ground like uh, it was a very problem to you how will you do su fekkee ne yow di nga mën a fàttale ko sa football books first football books in your career ak mu la jëndal ah loolu moom dëgg moom suma first football book ma ma ku ko jëndal mooy jàllo pj mm-hmm. suma koto bu baax la koto bu kuul la daal boobu du ma ko mos a fàtte dama jëkka bi daal te f la ma jëndal temps bu ko Messi doon sol bu es te original bi laa doon sol tamit. ok then that means those are the people that contribute si nga xam ne moo ah, ah, su fekkee ne te yaa ngi toog ko Pajal mu laa seetaan loo ko wax. non dama ne ko because door na ko si moom te xam naa ne ko si man la mujjee tamit def na ko place si buru jësoon xam naa ko staru ko si man tamit waaw comme maa ko gërëm rek am na because di ko ñaanal fan bu guddaa bi gu yaram rek mu mekkay def daal na ko continuer si xale yi yut si parce que mu ngay capab mu ngay jàppale jàppale nag kenn koo xam ne tam bokkoon na si ñu jëndal daala te maa ngi nii tey sant yàlla daal su nakib goy comme moo def daal na ko continuer di ko def rek jàppale ndoobu nit daala si société bi Josong Ibo Town na ko dimbale daal su ko mënee dimbale pour mu use daali football because Josong Ibo Town dañ like football waaye just we need help si players yi di wàllum daal ak encouragement bu baax bi xam advice bu cool loolu rek leen nit daal ok gis nañ ne boo nekkoon Israel you were at the youth level of Mayuda Ben Mayuda um, expectation were high ok you will continue with Ben Mayuda but what went wrong lan moo xewoon waaw lu fa demoon daal because probably daal dafa nekk Israel moom mooy loolu daal so foog nga try nga def nga def extraordinary daal pour nga mun a break through si team yi mag because one contract rek nga fa di am mm. So if you don't make it in that work, uh, one year contract, that's very difficult to drop. So either you can deal with back home, and you try to chance, say for them at that. a difficult from there, you tried a chance in Bulgaria. That's less um, in Bulgaria went wrong. Yeah, Bulgaria also maybe similar like similar because Bulgaria left Sofia. Mm-hmm. Saint Lovida, Lole, sign more I think six foreigner. si team bi so ba pare ñun ñu ngi fa woon around dañ always dañ leen fekk foofu five foreigner so maa ubbi ñoo fa àndoon suma boy so dafa difficult trop pour ñun si team bi loolu moo taxoon na mu ñoo nekkal fii Sofia because of documents tam bokk na si tamit. few documents. Then from there nga dem direct uh, Belgium or you were here in the Gambia playing? I was here in the Gambia playing for Superstar Academy in third mm-hmm. division. To try to, help the team like put team execute. so mooy loolu daal so mënuñoo jàll team bi to second division daal waaw we hope daal nañ jàll this year incha allah. how was the moment like nga nekk nga dem ba nga play fi nga xam mooy high level nga jékki-jékki let's say the lack of Israel yaa si on youth level ba ngay dem di mën a train ak li nga xam first team bi it's like mun loo ko rank in one of the best leagues in the world but they are top league one could say nga dem foofu li nga xamante mooy Bulgaria ak team like Loftus Sofia nga ñëw all the way back in the Gambia dooraat di play uh, third division how is it like to feel. waaw kay dafa dafa doy waar daal so jos da nga war a rek sa bopp rek si loo munti def daal si kaw suuf daal da nga war a gom am gom bi si yow daal bad moment good moment yëpp léegi ñu fa taw so ma ngay tànn suma boy bu baax because contribute suma life trop bi ma àgg fu ma àgg nii because courage bi ñoom la. Ah, so dee wax ne um, météo na trop suma boy how do you mean by taxaw nañ ma ah, because ah, gis nañ li nga xamante ne moo nekk playing third division like ñu bëri pour ñu def ko sa c'est problème especially ki nga xamante ne dem na ba nga ñam li nga xamante ne mooy professional level a ñëw away back home mooy play third division so yan façon difficulté lu what do you mean by di nga dégg lu nekk waaw loolu la comme nu ko waxee professional level mel so nga ñëw back to foo dooree graduate so nga war dem di play division so di nga dégg ñi yàlla wax comme maanaam daal amuloo aim xam nga da nga war a dem play fourth division ak yooyu noonu it's not about playing fourth division third division as da ngay play ball pour compte daal pour soo sa boppa daal so that is the most important thing I think si man because amoon dara gisuma woon dara sur football rek moom waroon na mën a dimbale pour ma aga fu ma nii because lu ma choose la ba pare daal then boo ñëwaatee Gambia how for how long nga nekk di play with the third division team well before making it to Belgium. waaw ma jógee Israel Bulgaria foofu naa spend naa fi almost one year or one year plus daal spend naa ko Gambia ma ngi struggle ak Superstar Academy di train ak gars mm-hmm. daanu di jóg di ñëw di train di hard rek pour nu ma seet nu ma génnee waat rek dem amaat beneen chance boo xam mun naa ko grab am ma dem si kaw daal. Oh. then from there nga dem li nga xam ne mooy Lomel what is based on Komta boo doon dem Lomel how it is like. waaw ma doon Lomel ay kolonti Louga Louga woon mais comme trace bi nga dem for two hmm. si trace boobu noonu daal di dama décidé woon ne man because bu ma xamu ne bu ma woowee ma war na dem dama dem seeti suma boy bi Bill Gates Ablaye. Hmm. ma toogaa moom suba ma dem seetam because musuma dem kiram suba teel dama eewu suba ma dem kiram ma expliqué na ne comme lii ak lii ak lii lay wax. te ma promise ko ne daal moom su ma dem daal naa dem de waaw soo ma fi gisaat rek holidays la moo nekka ñëw seeti famille bi ak booy te lu ma ko expliqué itam noonu la fa demee daal soo ba tey maa ngi nii fii oh bring us through in Lomel ah, ñu xamee la ko at the end of the day ah, rumors were going ne ok you will stick it Lomel because of you could recall ne ñoom ma doon wax ne you will focus with Lomel what went wrong and then why you shift from Lomel to Best waaw lu dem wala lu dafa dem wrong moom daal comme moo ma la explain exactly lii moo fa dem wrong because ñu ñu ñu la ñu management la ñu owner tam moo ñëw si team bi so I think loolu moo tax moo isi confusion bi suñu diggante daal so moo tax at the end ma move to dem Bell Scott. now you're with Bell Scott are we expecting a long stay in Bell Scott or you are considering a move somewhere? boo boobu moom comme right now moom du la mën a wax exactly ne comme lii decide wala lii suma gars decide because I hope daal loolu moom happen extend contract we hope for the best daal ñu jëpp daal I don't know what is going on now for this moment now. ok first game both player Gambia that was in Portugal right. how was it like uh, you receive I don't know whether it will be a call or an email ne you are invited on the. just espérer ñu sayt boobu daal how it is like. waaw bu ma receive eh, ak bu moment nga receive loolu because of let's say was it ne da nga jógee siin wala da nga jógee how fo naka nga receive eh, de contact. dama jugoon train ab tama dugg kër. Hmm. parce que dama dee tala whatsapp tama waa koñ si boppam. ab tama gis na gars seen na ma mail tam. so hmm. ñu ne ne koo ma invite pour test match bi Portugal ñaari test game. So dama la wax ne waaw daal this was the moment I was waiting for Coke pour pila national team bi sol basic dëkk bi Gambia pour represent Gambia because ku nekk Gambia rek bëgg naa representer Gambia daal koo xam ne Gambia la daal si wàllum football sa dëkk bi daal so bu ma ko yëgee tam dama woon a kontaan naa dama woon a kontaan bu baax a baax am danga di moment loolu yow rek a ko mën a explain that is nga play sa debut in Portugal that was against which team? Congo. Congo. Then Congo. that was a debate. But like in the Gambia here, like uh, wearing a national color is everyone's dream, and then the joys behind it. Nyep hamden nyum dem. Uh, um, sa debut in Gambia will be against. Uh, uh, it is Gabon. in Gambia? Yeah, yeah, against Gabon. Yeah, against Gabon. How it is like, okay, now I'm going to have my debut inside Gambia, and then I'll wear a, a nation color, and then at the end of the day, your debut in the Gambia, instead you were at the starting 11. Lul naka la meloon ak yow and then were you expecting like to start that game as your debut in your own country? waaw ah, comme noo ko waxee rek because dafa nekkoon game boo xam ne tam away game bu ñu demee away game biir Gabon ne woon naa second half waaw woon soo naa comme public bi daal dama dama pare pour play te bëggoon naa play tamit su ma joxee chance bi tamit naa wane lu tax ma bëgg a play tamit so bu ñëwee Gambia loolu happen comme surprise bi ma daal ma daal because xam naa ne comme ñu fa nekk ñëpp kuñ jot chance rek ma joxee chance xamoon naa ne comme ñu nekk si biti génnuma leen because tamit so am naa chance bi pour start daal so ay play am côté tam pousse ne ma mais comme mun na koo def ak yooyu noonu ñu ne ko suma gannaaw yëpp maa si sam soxna yi pousse ne ma ne comme dugal bu ragal ñu iboy waaw so ma courage tam ne ma duggee si fii bi ragal ma woon dara amoon pression amoon dara ok then ah, ñu nga start game boobu noonu and then that was a eh, let's say eye catching performance at the end of the day um, from there what were you thinking to for the future for you in the country like and future selection and all those stuff future moom maa ngi xal maa ngi xalaat ne comme mm-hmm. naa naa bokk history bu xapu nii comme qualifier loo dëkk bi tamit mm-hmm. loolu maa ngi xalaat future bi tamit comme mu am mu am moo tout play ma play comme at yu bëri daal si dëkk bi tamit ak suma friends yi ak ok ma delloo gannaaw tuuti because of gis nañ ne um, professional squad bu génnoon invitation bu amoon I don't know back in was in in Congo like there are players who were left out but at the end of the day ñu ñëw andi leen due to um, some injuries and some travel restrictions mm-hmm. you were among those players at the end of the day now you know that you were called est-ce que yaa ngi xalaat a sort of like Gambia su complété man I will not have a place in the Gambia. non xalaat moom loolu because chance bi because kuñ jox chance rek di nga wane loo mun xamu naa itam su ma su ma ñëwatee sax waaye de mu ma jox chance rek mooy ne du ma génnaat daal. ok right now yaa ngi diglu fans yi ñu ngi laa seetaan daal looy am luy wax si askan bi and then what are the expectations from Ablaye Sagnam in the coming years. waaw du wax gars yi comme jërëjëf rek comme si time bu gars yi di hmm. daal si future bi tam maa ngi daal ne comme. decapi dal min trane buganen pour jogu decapi dal from afcon nen dem dal right now so buganen pour jogu decapi tam from another level loo xam ne comme mooy world cup bi tamit inshallah soobee yàlla daal hmm, most all that game that you play in the Gambia is closed doors. Yeah. How will it feel to be played in the crowd of like thousands of Gambians you know, to rally behind you? How will you feel when you have to witness that day? boobu kay boobu boobu confidence la moo yokk rek si man because pili ak fans tam leen a trop tamit c'est nga day gën a de la day pousse nga pousse gars yi so suñu la poussé da nga day gën a woon ne pare ba ma pare bu pili nag c'est good. ok foog naa ñu ngi am time constraint due to your busy schedule nga try by all means ñëw. atteindre si li nga xam te ne mooy nekk suñu invitation pour nga ñëw waxaa li nga xam te ne mooy askan bi kon ñu laa jaajëfal loolu ak li nga xam ne mooy sa management bi ñu tax ah, da nga méeg li nga xam te ne mooy bés bi tey foog naa am foofu la ñoo droye di kotin ñu allow la maybe some other times like ah, comme bambalaay ni ñu ko waxee rek fii moom ah, always despite ne soo amee difficult moment difficult schedule da nga dee try by all means nga ñëw ñu am damay start so some other times nañ try pour ñu jàkkaarloo wala lëkkaloo ak yow pour ñu war a discuss li nga xam ne moo gën a huge that is the journey of Fambalay dinañ fa dem briefly but si kanam la moo doon bii daf ñu doon jox summarization because of mun nañ ko gis uh, si li nga xam ne moo nekk uh, introduction ak suñu I have difficulties but du dee explain due to some time constraint ñu nekk di dawee but in the uh, ngeen dégg